ayca ayca baax na baax na ñëpp baax na. jërëjëf mbokk mbokk yi tourné yi ñu ngi nuyu di am mbégte ak contentement bu mag mbokk yi ci bis mag di bis le 26 juin. mbokk yi bis boobu nekk bis boo xamante ni dafa am beneen xar kanam bu mu ci làmb ndax ñaari xale ci boole ñaari espoir. diggante Ada Fass ak Coly Faye numéro 2 gis ngeen tey Coly Faye numéro 2 yi topp ci ginnaawam yëpp ay jàmm gën si nga xaw ñëpp a génn tey moom lañ fi fekk tey fekk nañ fi Siteu champion bi taay bi Bamba bi fekk nañ fi léegi nag balaa ñuy jëm ci question yi dañuy bàyyi Coly Faye mu nuyoo ak tey waa Thiaré Géej ñu la dalal waaw bisimilah. waaw bisimilah ina waale yàlla jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Fall waaw ginnaaw ma sant yàlla julli ci yonent bi gërëm suma ñaari waajur maa ngi sant Sénégal gépp du nuyu ñëpp rawatina Thiaroye Lamsar Diamaguène Sicap Fass Mbao Petit Mbao Grand Mbao Thiaroye Yeumbeul Boune fépp fépp fu fu banlieue sax rek maa lay ci lamb yi ñun ci bon lieu lañ dëkk ñu banlieue banlieue heure eh, bii la ñu noyyi Arafat lii yëpp moo ko woote moo tax wuyu si mais bu ni dañu gis ni Ada Fass combat ñeme lool loo wax ci mu suñu loo wax mu indi ñaari da koy lindaa ne la naan bi kenn du ko mën na koo bañ loolu force la loolu moo koy dérangé moo loolu mën na koo bañ. waaw moom. la de. loolu moom loolu moom la li ma man li ma conseillé mooy li ma liggéey ak samay xarit ak samay mbokk moom lu muy wax lu mu def loolu moom la conseillé. man li ma conseillé mooy li ma li ma conseillé man. barrière bi dina wàcc la gars yi. combat bi fas yéene nga jàkkaarloo Ada Fass xeex ak moom. parce que moom wax la. wax ji lu ànd dafa ko moom am na yoo xam ne tontu si sax waxoo dox question boobu ma ko dégg nga. mais tey dañu la gis ak ni nga confiance bi nga àndal bi nga dugg si ko xaar arène waaw su may su may mbokk dañ ma wuy si xam nga la moo gën a neex si àdduna nga xew la woote ñëpp wuy si la man dama am ay nit am ay xarit ma leen fekk ñu lii ñu ma mën a fayee tey lii ma leen wax nit voilà lépp lu waay sonn si man rek lépp lu waay sonn si man lépp lu waay dugg si man lu waay dégg rek dinaa la sa naqar jour yi incha allah ñun Nantes dañuy yem ñun dañuy dalal Nantes mais Nantes dañuy dalal maa ngi wax benn affaire bu a bàyyi ci xel lamb ji à domicile la. à domicile. à domicile la man ak moom ba ci biir barax. waaw dafa kaas man man a war nga laa indil man a man a xel du jeex moom laa ko indi tegal ko. nga wàññi poids a nga fas yéene bëri combat boo xam ne dafay jël nga wàññi poids. wàññi ma poids combat moo fekk si liggéey rek combat bi moo fekk si liggéey damaa si combat sama doom sama grand sama doom day Siteu combat Papa Sow depuis premier combat ba ñuy ànd entraînement combat am jàll ma ñëw dal ci Reug Reug jóge ci Reug Reug dal ci te avant ñooñu ma ne wax ay Abou Ndiaye jaar na fi ay Taxe jaar na fi yooyu may ànd ñoom ay brise de mer ay Pasteur yi ànd ak ñoom di liggéey boobu léegi tege ma sama tànk xanaa liggéey boobu moo feeñ ci man mais wàññi ma poids amu poids mooy wàññi. Coly Faye dama la seeti fii ma ñëw seet la nga ne ma fàllu man ci ay tabax laay fanaan lan moo waral nga bàyyi sa yite yëpp nga ne ci ay tabax ngay fanaan ndax combat sa diggante ak Ada Fass deuxième mooy leen da ne Ada dama lay linjaa Ada Fass ne man man malfaiteur laa kenn mënu ma linjaa. malfaiteur la malfaiteur bi ñoom la gars yi di wër. Ada Fass la. malfaiteur la ñoom la gars yi di wër waa section de ñoom la ñuy wër nan ne wuyu ji xam nga malfaiteur la na ko noppal man doomu aadama laa en tout cas daal man nit laa man li sin men laa nante laa de mais dinaa ko li njaa man naan ñun nante du ñu yàpp nante du ñu yàpp du ñooy dalal nante waaye nante du ñu dalal lan moo tax nga ne da ngay fanaan ci ay tabax non loolu moo am loolu kër yow ma ko moo am armée laa neex foofu armée lu ma daj foofu rek jour yi day neex si man man xam nga loo ma ñor ndam li kese mais du dara lan moo tax nga Ada Fass dama jóg war a bëri moom ak bañ a balance yéen xam ngeen yéen leer na leen yéen journaliste yi mënoon naa am keneen ku dul fa Ada Fass yéen xam ngeen loolu man sama parcours fi ma jaar xam ngeen sama morom bu fa jaar tax man 21 bi mooy sama 21 combat ñu ni wax roi sa bëriwuñ a def ma jël ko te li ma ko jël dinaa wan gars yi Sénégal yëpp dinaa wan tax jël ko mais Ada Fass nee na combat moo naa ne combat yi gën a yomb ci ay waaw mën na nekk loolu mën na nekk parce que moom xalaatam rek la wax di sant Baye Sidi Mbacke alxuraan bu di ko talal loxo di ko ñaan mu jàpp si combat bu baax combat bi dénk naa ko ak Baye Karim Fallo ak sama sëriñ sëñ Modou Fall Fall di ñaanal sama benn sëriñ bu dëdd fan yi passé sëriñ Baye Diop laata di ko ñaanal fa mu jëm jë yola ko fi mu jugee ak ku mel ni si man di leen a ñëpp a Fass ne dina jàkkaarloo yow dina duma te sa loxo du jóg ngay dem loolu mën naa laamu yi ñoom fi ko teg laamu yi ñoom fi ko teg fii laay du foofu bala maa mën a nga am lu ma neex dëgg ñi ma am na sama gars yi sama Sika Mbaye nañ jël bi dee suul ko ma yóbbu sër kese boobaa la ñuy xam jàmm mais daaw làqu bi mi wax ah ma Ada Fass ma gulu Ada Fass mënu ma duma ay magam jaar nañ fi xool leen ay magam jaar nañ fii. mais Ada Fass nee na yow Coly Faye daw làqu nga. fii daw làqu amul fii deret moo fi am fii deret moo bu mu wootee li muy wootee ba ñëw fii bëgg a daw daw dañuy génn naan ay ay liggéey li mu doon waxee commencement bi dafa continuer li mu ko somb dina ko naan. na ci yàlla. yow wax ji waaw. waaw am nañ beneen droit. Ada Fass pour mu am muy teg bëtam si man xanaa kon moom bëggul dara. fi mu teg bëtam am na fa trois teg fa bëtam xam nga laa bëgg ma xam ko Ada Fass la dañ koy dalal day def taj ah. waaw. lu ko ëpp. non wax dëgg fay xale moom. Arène Nationale dinaa ko tëj. dëgg yi ma la de li def keroog dinaa ko def lu ko fay li ma fay man dinaa dugal double bi. double double am li ñu ma fay naa ko dugal. sa diggante population Thiaroye tey ñëpp a génn est-ce que ñu gis man yow kii bu gën a man bi su bi su ne ñu ma bëree mbapat bëree moo ko aaree nga taxaw nii fii nga taxaw fii laa bëree sama ko mbaam xaaj bi yëpp barki suñu mbaam su ma Coly Faye na nga li jaa. sa diggante ak Siteu gis nañ ñëpp sama frère la mooy moo ko marqué rek rek maa la ak Abou Ndiaye ñii samay frère la ñii maa ñoom du lamb ñii lu ma di métti ñii dañuy sonn ngir man di dégg ngir man ñii dañuy bàyyi suñu borom. Li jaa. Li jaa bi. waaye ma xaar maa ngi woo di lu dul lu daal lu dul jàmm jàmm moo la gën. mais dimanche nañu xaar. xam ne loolu la